altine jàngook hmm, altine altine teneng <laughs> ne teneng altine teneng teneng waaw teneng mooy altine hmm. yenn saa nga gis ku tudd teneng fay teneng joom teneng bopp wala teneng juuf ah, altine waaw ar daba nga gis ku daba daba mooy àllarba waaw daba daba juuf daba fay daba saar seen seen seen seen seen seen bi nag neexul ba neexul waaye da ngeen ko jël si diggante xaal pulaar <laughs> mënta nekk de mënta ne. Hmm, ngeen jaxase mélangé quoi finalement ah, ah, mu nekk benn langue quoi mënta ne Seydina Omar. mënta ne ah, ne ndax boo nee njiróopo suñu mbokk alpulaar yi ñu cee toppandoo. Euh, ah gari ñaam. gari ñaam ar ñaam. Euh, Fuuta ci ñun lañ ko jëlee ca Siin <laughs> naka itey. alhamdulilah la nga junjoon ci komba Tafatine Eumeu Sène seen feeñ na démb junjoon nga ne Eumeu bu demee woo Tafa ci xeex mun naa ñàkk combat gi. xeex na ko bon woo ko ci xeex na ko ci xeex finalement combat bi ci bëri la mujjee. ndax ci ci bëri la mujjee. waaye a jàngat mooy bu doon ne paak la ñawatuñu. Mhm. waaye waa Pikine ñawatuñu. mënatuñoo dabu lu bëri bëri dabu problème bi nag dafa xaw profond xaw ma daal mooy problème bi. ñaari défaite yu. mais ñoom ñi nga xam ne ay kilifa lañ yore làmb ñu nekk foofu ci diwaan. Pikine waaw war nañoo ndëpp. war nañoo éviter fekk si leen dóor naa dóor leen. waaw te arène ba Pikine la ah, ne. seen prix benn chaque jour gars yi du ma leen jël maa ngi làmb ji jël. yóbbu yóbbu waaye mm-hmm, mm-hmm, waaye mm-hmm, war nañoo tëggal suñu bopp waa amul sens. ñu encouragé ma seen. félicité Tapha waaw. ndax bëri fay ña dem métti woon si moom métti woon na loolu waaye. moom jëli ji jëli ji jëli am solo. waaw jëli ndam bi moo ci am solo. Euh, te gëm naa ne tamit Pikine a ngi bëgg a soobu ci beneen combat euh, muy Boy Niang ak Modou Lo. waaw ah, boobu yaakaar nga di euh, yaakaar nañ ko. Pikine yaakaar na am ndam. waaw ah, daa mel ni Pikine roi des arènes bi la gën a soxla. <laughs> loolu mu ngi fi moom. <laughs> Ba. Euh, xam naa ne euh, daañ ci dikkaat na mu gën yaato euh, xibaar geneen mu ñeel tolluwaay réew mi njiit réew Macky Sall ak demam ga ca Paris ak envoyé spécial gañ ko fa fal bees ak leneen i tamit lu fës junjoon nga ko fan yi passé nga xamante ne ku jëkk politique bi daanaka kenn déggatu leen fit boolewaat na leen ndax daañu takk seen fit jàkkaarloog nguur gi fi ne loolu itamit laaj dagu samp ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la réewum Sénégal di dund bennoo amat amatul euh, yaakaar gagné élection yi bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Jules Diop. waaw dem waxtu may mayuñu ko. xam naa tënk euh, dañ koy tënk rek mhm. wax d'abord ci président Macky bi nga xam ne nii. Mhm. parce que mënuma jàngat di tëg Walf Quotidien. tout à fait parce que par rapport ak ambition yi nga xam ne nii. Mhm. Euh, président Macky Sall am na ko. am na ko waay. que boo fàttalikoo avant moo dem Riyad dafa jaar fële ca Paris. xakay gis naa fa ki nga xam moom moo di Macron. ci benn sommet bu ñu fa doon organisé. parce que ci wàllu jàmm la woon. foofu la ko Emmanuel Macron wax ne ko tey bu yàlla defee mu jeexal ayam. dañ ko tabbu def ko mu doon envoyé spécial. Mm-hmm, mm-hmm. parti de de Paris. lii nag bu amee nañ jàpp ne bettuñu xam lu tax. Mm-hmm. parce que réewum France en général. ñoom dañ jàpp ne fii ci Sénégal rawatina ci Afrique francophone amuñu fi ay chef d' état ambassadeur lañ fi am. waaw waxoon nga ko fi waaye. te képp koo xam ne ab ambassadeur nga. ci diir bi nga xam moom nga nekk ci biir réew mi bu fekkente ne def nga ñoom la ñu bëgg boo hmm. génnee foo wala kon daañu la jox mbaxus mbaxus wala tuxal la lay jox exemple ci Abdou Diouf ba mu fi jógee hmm. francophonie dama lay jox exemple tey ji ci Macky Sall tey ji bu fi nekkee cànki jógee hmm. mais Abdoulaye Wade bi nga xam ne dafa lankoon ne luñ ko dara moom am luñ ko jërale waaw loolu mooy wane ne français comme ça waaw surtout ça bu fekkente da nga nekk ab chef d'état nga nekk ci biir Afrique ñu lay def loo def ñu lay tere ngay bàyyi noo def bu fekkente ne yàlla def na yow génn nga ci pouvoir bi daañu la ut fuñ la planqué. Mm-hmm. nekkal ma ëllëg ma nekkal bu ñu waxante dëgg aussi Afrique dafa am ñu fi nekk ñoo xam dañ fay nekk ay chef d' état waaye ay ambassadeur lañ. Mm-hmm. muy ku ci mel ni président Macky Sall ambassadeur yu ponkal yi ci France mm-hmm. ku ci mel ni Alassane Ouattara moom moo gën a noon ponkal bi. <laughs> ambassadeur Bazoum bu Niger finalement moom ah. pouvoir bi mujjee noo koy ñaar. waaye ñett ñi mooy ñi nga xam ne ni ay ambassadeur France lañu. lépp loo xam ne ni France bëgg na ko ci boo fàttali ko port bu dakaar bii. Mhm. génnoon na ci loxol français yi. Mhm, président Abdoulaye Wade du ko jëloon daal di koy joxal Dubaï pour wër waa France waa waa di gis seen bopp. Mhm, waaye président Macky Sall bu mu toogee li mu njëkk def mooy nanguwaat port bi ci loxol. Euh, naar yi tey jii suñu gasoil bi kan moo ko yore ak essence bi. du tubaab yi. tubaab yi suñu autoroute bi ñan ñoo ko géré. du tubaab yi ñoo ma suñu Auchan kan moo ko géré. du tubaab yi ñoo ma. Sénégal tey ji bu fekkente ni yaa ngi dugg ci internet bi di gëstu. plus de 2000 entreprises françaises ñu ngi fii fii fii Sénégal. <laughs> Ah, kañ takku nañ fi waay. chaque année daañu def plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires ci ndoddu Sénégalais yi. mais loolu nag tey jii yow. réew mi du ko permet ab chef d'état ngay génn. te du la jox mbaxus. Euh, dañ koy xàññee yoon waaw surtout ñu jox ko mboxus moo tax lii daf may fàttali la mu lebaloon moom lañ ko fay lii daf ñuy fàttali kàddu yi nga xam ne Cheikh Touré waxoon na ko ay jamono mhm. Cheikh Touré nee na waxtu wala comment bi wooyee mhm. en tant que chef d'état félicité la wax na yow ku baax nga ci ñoom. Mm-hmm. jàppal ne yow ku bon nga ci sa askan. Mm-hmm. la preuve mooy que tey jii nañu waxante dëgg Sénégal tey jii li nekk ay entreprise yëpp tëj nañu. tëj nañu fépp. si bëri si ñoom gisatuñu seen bopp mooy petites et moyennes entreprises yi. Mm-hmm. lépp jël nañu ko daal koy jox tubaab yi. effectivement kon c'est normal président Macky Sall bu génnee ñu daal koy def envoyé spécial. nangoo ko mais tey jii bu ñu ko doon jugé moom président Macky Sall. na ko Sénégalais jugé. Mhm. et puis ça c'est dommage. surtout ça léegi nag réew mi ñëw ko war a président Macky Sall dem na. gis naa Mor Koro léegi jaay na ko Amadou Ba. Mhm. nee na ko Amadou Ba bi mooy waaja. Amadou Ba bi mooy koo xam ne war naa mën a gérer France Afrique. Mhm. Amadou Ba bi mën naa doon koo xam ne mën naa gérer bi mooy koo xam ne tey jii yow Macron boo tisolee mu ne la yaar mu kàlla. kon dañu fexe ba Amadou Ba toog ki bopp réew mi mais est-ce que Amadou Ba am na kattan ak mën-mënu jiite réew mi. est-ce que Amadou Ba am na kattan ak mën-mën diriger coalition benn bokk yaakaar mënu ko la preuve mooy. Hmm, la preuve mooy. gis nga cassure bu am tey jii ci biir coalition benn bokk yaakaar. tas na moo tax coalition benn bokk yaakaar amuñu benn sens Abdoulaye pour gagner élection présidentielle xam hmm, hmm. parce que mënoo dem ci élection présidentielle ku ci mel ne Aliou Ngouille Ndiaye ne man ñett ànduma ci. te képp ko xam Linguère xam ne Aliou Ngouille moo fi mës di gagné. base Kolda ku mu neex ak ku mu naqari xam nga ne Mame Boye am na fa doole. Ah, tey jii Mame Boye Diao da samp ndëndëm. Mm-hmm. kooku du candidat du baston de moyen. Mm-hmm. waay Mouhamed Boun Abdallah Dionne. nga xam ne tey jii ñëpp ñi nga xam ay récalcitrants lañ ñëpp ñoo xam ne actuellement ànduñu ak président Macky Sall ci soo Amadou Ba. Mm-hmm. ñoom ñëpp dem nañ ràññee Mouhamed Boun Abdallah Dionne. kooku aussi du candidat de moyen. Ah. léegi nag yéen bëgg bëgg ñoo gëmloo ne kii war naa mën a bokk élection présidentielle et benn ñaar Amadou Ba. soit non mais ñu tuuti rek après nga ñëw. benn virgule rek tuuti rek tuuti rek. Mhm. yow munoo. yow munoo. nga xam ni ni yow nekkoo woon yaa ngi bokkoon sax génération du conque d'appli gars yi wax. Mhm, mhm. élection présidentielle yi nee nañu ba coalition yaa ngi ko relié entre les deux tours. bokkutoon après élection 2012 yi nga relié si biir parti biir affaire bi bien que gars yi nga koy bañ mais loolu moo am. bokkutoon ñi fondement bokkutu woon. yow ci sa cursus politique. amul fenn foo xam ne mës nga fa gagné ay nga xëy bés ñu da bëgg laa. propulsé di la teg ci kaw ndodd ñi nga xam ne ni ba affaire doon bañ doon sa affaire ñoom la woon mm-hmm. moo tax ni mu wax dëgg mm-hmm. Amadou Ba dafay waxatu ci sax Lamine Bara Gaye si boppam mu ngi yëkk ay kàddu di wax ne bu ñu deful ndànk mm-hmm. élection présidentielle dañ ko ñàkk ndax bëri na tey ji ñoo xam ne dañoo frustré ci biir parti biir APR moo tax Souleymane Jules Diop li mu wax ni lu ma léegi nag xam nga lan problème bi fu ngay fi jeexal mooy xam nañ ne fu mu toll nii ñu ngi ci eh, fu mu toll nii gi mu ngi ci tànk ñàkk. Eh, eh, ñu ngi ci koy yàq bopp réew mi waay léegi li ñu bëgg a gëmloo ñun sénégalais yi. mooy ni ñu reporté élection yi. waaw daa xam élection la. yoo xam ne actuellement moom la ñuy sànni ci askan pour askan mën koo di di ci préparé. Mm-hmm, mm-hmm. mais est-ce yi war nañoo nangu ñu reporté élection yi. Mm-hmm. mais parce que xam nga tax mu war ko nangu. parce que. lu bari jaar na fii waaye te mosuñoo dàq élection. parce que xam nga parce que xam la problème. que ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey Sénégal actuellement nii. Mhm. dunduñu fi li war a tax ñu war a daax élection. Mhm, mënut a ne waaye. Sonko war a tax ñu daax élection. Mhm, Sénégal mës naa ay jafe-jafe ci wàllu politique. mais terewul ñu dàq élection Abdoulaye am na benn journal bu ko bind diggante 1960 ak 1968 kaa bi fi amoon yaa ngi koy fàttaliku diggante Mamadou Dia ak ak kii te ak Léopold Sédar Senghor mais terewul euh, fi amoon ba ñu bu policiers yi ñàkkoon seen bakkan. oui te élection ñàkk élection. élection dañu ko amal ci date ba. Mhm. <laughs> lan moo tax tey ñu bëgg ñu gëm ne war a ne élection c'est parce que tout simplement pare wuñu. pare wuñu xam nañ tey bu ñu demee élection dañu mhm. léegi nag li ma fay jeexale. acca mooy que li war a xam mooy. Mhm. nguur dafay périmer. waaw ñoom seen nguur périmer na. seen nguur produit la. gis nga nguur bu nekk produit la. Mhm. produit bu nekk am na date boo xam ne fa la yara jeex. kenn mënatu koo jëfandikoo tey jii muy Amadou Ba. muy Mouhamed bu Abdoulaye Diop. Mhm. même tey jii bu fekkonte ne sax déclaré nañu politicien Sénégal. Mhm. bu ñu ko tegatoon ci bopp coalition benn bokk yaakaar du ñu gagné. du ñu ci taxaw seetlu geeg euh, njàngat li euh, daanaka am nañu mbégte lool euh, taataanaat lu bari ci jukki tey bi jëm ci wàllu politique ak ëllëgu Benno Bokk Yaakaar ak lam-lami élection présidentielle goo xamante ne